salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla mi bëgg ñépp nangu yoonu njub bi mu tëral nu ngi dellu di sant yàlla ci li nu fi mën a teewaat di leen dégtal seen émission yoonu njub xarit yi ñuy déglu ndax mës ngeen gis tool bu ñu dul bayaat maanaam tool bu kenn dul dindi ñax gi sax ci biir gàncax gi xam naa di ngeen ne ah ku ne xam na nit ab toolkat dees koy bayaat lu ko moy ñax ma dina mëdd gàncax ga waaw man mii it ànd naa ak yéen ci loolu waaye kaay ma xamal la ne am na tool bopp kenn du ko bayaat waaw soo bëggee xam boobu tool mooy ban topp nu ci sunu léebub tey bii nu yéesu indil ci linjil te dina dinanu gis nu loolu mën a ame dafa am bés yeesu di jàngal mbooloo ma ci mbirum nguurug yàlla mu ne leen nguuru yàlla aji kawe ji dafa mel ni nit ku ji jiw wu baax ci toolam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 ñi bokk ci nguur yàlla ñoo di jiwu wu baax wi ñi bokk ci iblis ñooy jëmb bi seytaane mooy noon bi ko ji tukkitel àddina mooy ngóob mi malaaka yi ñooy góobkat yi ni ñu dajale jëmb bi ba lakk ko noonu lay nekke bu àddina tukkee doomu nit ki dina yebal ay malaakaam ñu jële ci nguuram lépp lu yóbbe nit baakaar ak ñiy def baakaar sànni leen ca safara foofa dees na fa jooy booba nag ñu jub ñi danañu leer ni jant bi ci seen nguurug baay mbokki déglukat yi ni ngeen ko dégge borom bi yéesu jëfandikoo waat na mbiri mbay ci léebu bii waaye bii yoon anam yi wuute nañu waaw fii dañu fi gis ne ndeke am na tool bopp deesu ko bayaat maanaam tool bu ñuy bàyyi ñax ma saxaale gàncax ga tool boobu kon mooy àddina sii ci misaal doomu nit ki maanaam yéesu Kirist moo ji ci toolu yàlla bi di àddina yàlla yónni almasi bi ci toolam mu si ko maanaam mu sàkku si ñu nangu seen baakaar fa kanam yàlla te gëm ko moo tax bi Yeesu nekkee ci àddina mu ne woon doomu nit ki ñëw na ngir seet te musal ñi réer kon li tax yéesu ñëw ci àddina leer na mooy ngir musal ñi réer mën na am yow miy déglu nag yaa ngi naan ci sam xel ah man de xawma ku réer waaye du man mii nga xam ne maa ngi def sama warugari diine waaye mbokk fàttalikul ne kàddu yàlla nee na loolu taxul kenn jub fa kanam yàlla te ko jub amul ci bëti yàlla du kenn sax ñépp bàkkaar ndax seen bokk ci aadama wante Yeesu Kirist moom taxul bàkkaar du def bàkkaar te loolu téere yi ànd nañu ci moo tax mu mënoon a deewal bàkkaarkat yi kon ñi bokk ci nguurug yàlla gi mooy ñi dégg xabaar bu baax bi te xam ne amul dara lu ñu mën a def ba musal seen bopp ñu gis it ne amul keneen ku leen mën a musal ku dul yeesu musalkat bi noonu ñu gëm ko ni seen musalkat bi ñëw goreel leen ci safara kon naka tool bi moom ni ngeen ko dégge mooy àddina ni jëmb bi raxe ci biir dugub ji noonu la àddina jaxasoog lu baax ak lu bon nit ñu jub fa kanam yàlla ak nit ñu dëng ci gis-gisu yàlla ñu dëng te jubadi ñooy ñi bañ nangu musalkat bi yilif leen kon ci iblis lañu bokk ñooñu la jëmb bi misaal ñooy ñax gu bon gi bëgg a mëdd dugub ji maanaam ñi gëm kirist te di ko déggal seytaane mi xel ñaarloo woon aadama ak awa ca toolu àjjana ba ñuy moy ndigalu yàlla mooy ki ji ñax ku bon gi ci tool bii di àddina lépp lu bon ci moom la bawo mu taabal ko ci dund nit ba tey seytaane ngi def ci xolu nit sikki sàkka ci lu jëm ci dëggu yàlla gi ba nit du nangoo xéewlu ci xéewal yi yàlla bëgg a jagleel doomu aadama yépp jaare ko ci musalkat bi yéesu naka weddi googu moo tax ba surgay boroom tool bi maanaam malaaka yi laaj seen kilifa ndigalu buddi ñax ku bon gi bu desoon ci malaaka yi rekk kon raafal nañu bu yàgg ñépp ñi won gannaaw mucc gi leen yàlla jagleel ci almasi bi waaye yàlla mi yeyoo àtte bu jub bi dul jaas dafay muñal doomu aadama yi tey yërmande yàllaa ngi teew te ku nekk mën cee jot waaye bés dana ñëw te sax bés boobu yërmande yàlla dina wéy booba yàlla dina wax ay malaakaam ñu àtte nit ñi àtte bu jub moo tax ñi foog ne yàlla dina mujj baal ñépp ci yërmandeem jum nañu waaye yàllaa ngi xaar bés bu mujj ba ngir tàqale ñu bon ñeek ñu jub ñi ni ñuy tàqalee xatax ak dug xarit yi lenn rekk a waral yàlla di muñ ba tey moo di dafa bëgg ku nekk tuub walbatiku ci musalkatu àddina bi tey jii jotu dellu ci yàlla am na bésu àtte bi jàmp na misaal yi ci yeesu joxe yépp a nga ne fànn yéen a ngi dégg ay xare ak ay coowi xare xeet a ngi jóg di xeex ak morooma xeetam réew a ngi dal ci meneen réew xam ngeen it ne am na ay xiif ak ay yëngu-yënguy suuf ci gox yu bare ci àddina fi mu nekk nii waaye yeesu nee na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 mbokki déglukat yi gisal ngeen seen bopp ne loolu yépp mu ngi am ci àddina si te léegi dafa gën a tar sax xare yeeg musiba yi bare nañu te bàyyiwuñu benn gox ci àddina kon bés bu mujj bi yàlla daan yégle jaarale ko ci yonent yi jege na lool mënees na wax sax ne jàmp na mën naa nekk tey sax moo tax Linjiil ne boo déggee waareeb xabaar bu baax bi ci almasi bi yéesu bul xaar bu xase ba agsi bu boobaa dina fekk réccu wees ndaxte bu liit ga wolee malaaka yi di góobkat yi dinañu dajale ñi bokk ci kirist yeesu maanaam ñi ko gëm tàbbal leen ci jataayu yàlla ci àjjana te ñi bañoon a gëm rawuwaay bi leen yàlla jox ci àddina ñu dajale leen ni ñuy dajalee xatax lakk leen ca safara safara soosu nag mbind mi xamal nanu ne safara sudul fay mukk la te bu boobaa jooy réccu ak yeyu dina bare te nag su boobaa yuux dina jibe fu ñu ko foogewul woon wante ñi jub ci anam yi ko yàlla bëgge ñoom bu boobaa dina fekk ñuy bànneexu ca jataayu yàlla te di leer ni jant bi kon yow miy déglu looy xaar fan nga féete ndax wóor na la ne bokkuloo ci jëmb bi nekk ci tool bi te ñu nar koo dajale lakk ndax bokkuloo ci ñi xeeb xabaaru musalkatu yàlla bi ba nara sànku ba faawu ca safara wóor na ma ne sa bëgg-bëgg mooy bokk ci ñi bànneexu ji ci jataayu yàlla ba faaw waaye kenn ku nekk yaa mën a jëlal sa bopp sa matukaay ba mucc ci safara keneen mënu la ko defal matukaay bi nag mooy nga gëm benn ramukat bi am kepp di Yeesu Kirist mucc ki doom aadama yépp di wut mu ngi ci benn musalkat bi am kepp di almasi bi yeesu kon daal mbir soo koy wut danga koy wut fa mu nekk lu ko moy dinga wut ba sonn te doo gis tus moom yeesu mi xam lépp laata sax muy xew newoon na bu leen kenn waxee kaay leen gis a ngi fi mbaa mu nga fële bu leen ko gëm ndaxte ñi mbubboo turu kirist ak ñi mbubboo turu yonent dinañu feeñ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 te xool jaxran ba bañ a barastiku ci mbartalum dee moo tax yeewul xamal ne yàlla jox na la pexe tey jii te won na la fu mu nekk pexe mi mooy deretu kirist ji tuuru ca bant ba ngir boo ko gëmee nga mëna bokk ci ñiy bànneexu ci jataayu yàlla ba faw pexe mi du soppi ko mukk moo tax mbind mi ne gannaaw kirist yéesu dee na ngir jot leen yàlla ci yiwam mën na leen a àtte ni ñu jub ci dara wàcce na kirist mu nekk sarax ngir yàlla baal nu sunuy bàkkaar jaar ci deretam ji ñu tuur te ngëm rekk moonu ci boole noolu yàlla firndeel na ne ku jub la doonte sax dafa muñaloon ñi jiitu jamonoy kirist ba jéggal leen seeni bàkkaar kon ci jamono jii nu ne yàlla wone na bu leer ne ku jub la di àtte ni ku jub képp ku gëm yeesu te ba tey dëkk ci njubteem lépp mat na waratuloo def dara di ca wut ak mucc yàlla def na lépp bi mu yónnee yéesu mu jébbale dundam ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex ca jataayu yàlla yéesu matal na lépp gëm ko rekk a ca des te dinga mucc texe àddina ak laaxira xëy na yaa ngi naan waaye yow bul sonal sa bopp li ngay wax mënunu ko dégg te dunu ko topp ndax moo moomunu ko du sunu mbir su fekkee ne loolu mooy sa xalaat ci dëgg dama la bëgg xamal ne sa xam-xam ci mbirum yéesu des na yéesu dafa wax ne man dama ñëw ngir nit ñi am dund ba nekk ci naataange man may sàmm bu baax bi sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund yeesu xeeti àddina yépp la ñëwal ndax dafa leeragul ba tey ci yow ne yéesu mooy sarax bu mat bi la yàlla joxel yàlla def na loolu ndax xam na ne moom mi sell yow mi sellul mënoo ko jege neneen nu dul noonu ndax nit ñépp bàkkaar te bàkkaar booboo dox sunu digganteeg yàlla te ngir yàlla mën laa jàppe ni ku sell faaw nga gëm ne saraxu musalkat bee la mën a musal kon yow mi déglu ngir mënam amaat diggante bu baax ak yàlla danga war a gëm musalkat bi mu yónni noonu dinga tàbbi ci ajanaam ji nga xam ne bokk ko ak kenn te moom rekk mooy dogal ku fa war a dugg mu dëppoo ak anam yi mu tëral ña fay dugg mooy ñi wekk seen yaakaar ci yéesu Kirist noonu soo bañee bokk ci jëmb bi malaaka yi a dajale ca bés pénc ma lakk ko gëmal saraxu musalkat bi yeesu soo lànkee nag li wóor mooy ca bés booba dina yónni ay malaakaam ñu dajale ñi ko bañoon a gëm ñépp tàbbal leen safara su dul fay abadan yeesu nee na asamaan si ak suuf dina ñu wéy waaye samay wax du wéy mukk nu ngi leen di gërëm ci déglu bi su ngeen amee laaj ci lum jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis wala boog ngeen bind nu ci sunu adresse électronique maanaam yoonu njub at saintout point sn yoonu njub arobase saintout point yoonu njub nag nii lañ koy binde Y O N U N UB na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li mbind mi wax ne li yàlla dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu xanaa tey da leen a muñal ndax bëggul kenn alku waaye ñépp tuub seeni bàkkaar